question pertinente boobu euh, bu am solo ñi hadi aswal al muhim mhm. ñuy ziar bu baax euh, Serigne Bara mhm. Oustaz mhm. ndax moom boroom xam-xam la Égypte la nekkoon di ingénieur en informatique te bari na ña nga xamante ni ñu ngi woon Misra di Égypte moom mii moo leen jàngal informatique di xaafidul Qur'an ndax loolu mën naa ko seede te du lu ñuy waxantu kon boroom xam-xam lañ fi àndal tey mu nekk jataayu xam-xam ndax fa tabarakallahu ma sha allah comme li ñuy wax rek saa yoo tegee ci média di wax lu mel ni télévision rawatina ñu la sut àlluwa ñu ngi fi ñoo tollool àlluwa ñu ngi fi ak ñi nga xamante ni yàlla dogal na xëy na yaa leen këfin tuuti ñun mhm. ñëpp nag moo tax may wax ak képp kuy wax ci tele ak domaine boo mën a waxee mhm. euh, li nga wax dafa am la nga xamante ni lu ama am solo la mhm. mais man dama bëgg rek nga décortiquer ñu benn aaya tuuti rek ñu avancé si ndax boo demee ci suratul jumaa ndax tamit ñi ñuy seetaan euh, man nañ bàyyi xel li may wax yàlla day wax walladi baasa fi l ummiyina rasulan yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kaanu min qablu la fi dalal mubin waaye wa axarina minhum lamma yalxaqu bihim wa huwa alazizu alxakim zalika fadlullah yutihi man yasha wallahu dul bi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala doon wax ak yonante bi sallallahu alayhi wasallam ne moom moo ko yebal si ñi nga xamante ni jànguñu ngir mu xamal leen lan mooy seen diine waaye itam sellal seen ay ruux donte la bu njëkkoon laata yonante bi sallallahu alayhi wasallam doon ñëw dañu nekkoon ñi nga xamante ni dañu féete woon si ak ceddo buñ ko sañee waxe noonu rek wa aaxarina minhum lamma bi bihim am na ñu ñëwagul ñi nga xamante ni itam dina ñëwaat si ñoom donc aaya boobu boo ñu ko doon décortiquer ñu ne oustaz xam naa daanaka décortiquer ko <laughs> ci sa ci sa laaj parce que juññ nga lépp ndax euh, alayhi doon na wax naan suñu mbooloo du mat mukk lu dul dinañ dimbali ko groupe ba nekk ci ñu ñuul ña yonente bi alayhi laata muy génn àddina dafa dem ziyaari ji albaqia mhm. almeeri Medine mhm. ziyaar saxaabaam yi mu mel ni ku ku doon am ak ñoom dernière rencontre mhm. bi mu génnee ci ci visite boobu taxaw ak saxaaba yi ne ay waay namm naa sama mbokkee waay ñu nekk ko waaw awalas naa ixwaanaka ya rasulallah ñun ñi nga xam ne ñoo ànd ak yow ba Badar Uhud Xandaq xeex ba lislaam taxaw nga ne da nam ma say mbokk mm-hmm. ñun buñ dul say mbokk ñan ñoo say mbokk sama mm-hmm. say mbokk mu ne yéen samay saxaaba ngeen mm-hmm. waaye samay mbokk mooy ñi nga xam ne dañuy ñëw sama ginnaaw pare joxe seen bakken gisuñu ma ñu ne ko waaw yoneen nan ngay xàmmee ñoo xam ne ñëwaguñu sa ginnaaw mu ne leen bu nit amee ay fas fas yoo xam ne yépp a ñuul ci kaw ba ci suuf ay fas rax leen yoo xam ne seeni tànk day weex seeni jë day weex est-ce que du mën a xàmmee fas yooyu nga xam ne seeni tànk ak seeni jë day weex ñu ne kaxa kay mu ne ñooñu nga xam ne samay ixwaan leen dama leen di xàmmee ndax asarul wudu maanaam trace bi nga xam ne njàpp mooy am effet bi muy def ci ñoom mooy tax ma leen di xàmmee ci jëyu weex ya ak tànk yu weex ya ma question mooy al muqarrir muhaddali mooy bi yonen wootee ba léegi nit ñaa ngi jàpp lan moo war a différencier njàppa ma nga xam ne moom la saxaaba yooyu nga xam ne moo doon wax naan samay saxaaba ngeen ban différence lay am ak ixwaan yi ñu ngi koy xamee ci man istataa minkum an yutila ghurratahu tax wa tahjilahu fal yaf'al Seydina Limaamu Laay ñëw jàppaloo ay toppeem ñu jàppe ba ci seeni oom loolu nag mooy màndarga ba nga xam ne moom la rasulullahi doon wax mu mel ne saxaaba yi dañoon amoon suwe nekk mbokki yonent bi yonent bi amoon suwe dajeek ay mbokkam yàlla def vë boobu Moustapha amoon daje mooy ay saabam mujj doon ay mbokkam mu ñëw axru zaman ñi dajoon ak moom nekk ay ixwaanam nekk ay asxaabam ci même instant bi loolu nag moom la suñu boroom di junj wa la mu tawilahu illa allah ndax yàlla rek a xam li mu namm ci alquran waaye defe naa bu ne wa axarina euh, minhum lamma bi bihim leer na bu baax ne yonente bi alayhi salaam ni ñu ko yónnee ci ñu weex ñi noonu lañ ko yónnee ci moo tax ma ne la mooy rasulul urbi mm-hmm. wal ajaami sayidul dem ba ci way xam wa imaamun mm-hmm. li suudi wal bidaani mm-hmm. sayidul axirina tey jii ci ñu la macha allah Seyda waaw man am naa foofu question question bi mooy euh, moom Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam parce que euh, ñëpp bëgg nañu xam dëgg la te bu fekkee ne yàlla daf ñoo may lu mel nii mu nekk suñu réew te tey ñu bëri dañuy teewlu ci émission bi te mhm. émission bi kii la boo xam ne plateau xam-xam la mhm, ak euh, li nga xam ne Assane yëpp wax na ko ci sa xam-xam ni mu soree mhm. macha allah taala am na ñoo xam ne dinañu bëgg lu gën a leer li nga xam ne mooy loolu te yonent bi sallallahu alayhi wa sallama ñun ñëpp jàng nañu dañu waxoon ne mooy xaatami nabi yi moom mooy yonent bi mujjee ñëw léegi nit ñi toujours dañuy jaawale ndax imaamul mahdi yi yonent la wala yonent bi nga xam ne moo nekkoon xaatimi nabiyin moom ci boppam moo ñëwaat ak bi mu ñëwee nan la ñëwaate te comme yonent bi la dañ ko yónni woon kaafatan li si pour àdduna yëpp ndax ci jàngalinu euh, ci nekkunu imam Mahdi ndax dafay yem ci nit ku ñuul rek wala dafay yem ci sénégalais rek wala dafa war a jël mission yonent bi sallallahu alayhi wa sallama wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin doxe na ko waaye nag kaafatan lin naas nga xam ne day dajale àdduna bi yëpp fan ngeen ci toll ci mission boobu jërëjëf soxna si xam naa xanaa bala ma xuus ci ci laaj boobu bëgg naa ñu ñu d'accord ci ay préalable mu ay principe yoo xam ne mm-hmm. dafay am solo ci waxtaan yu mel nii nit ñi di ko bàyyi xel mm-hmm. mu nekk benn background boo xam ne dina ci mën a analyser waxi kiy wax mm-hmm. principe bu njëkk bi mooy mission ak missionnaire damay faral di wax et c'est mon engagement personnel que ni lu missionnaire rëy rëy mission moo ko gën a rëy ndax missionnaire dina fi jógee waaye mission am dafay des kon waxtaan wi dinañ ñëw bu baax a baax ci question boobu dinaa ci tontu. ñu cërale aussi bu baax a baax mission moom. li ko taxoon jëw ci jamono. deuxième principe bi mu bëgg a jiite ak ñu d'accord ci alxuraan nee na maa daa bandal xaq illa dalal. ginnaaw dëgg lu dul dëgg lan mooy mafhumul muxaalafa bi. mooy maa daa bandal dalal illa alxaqul mubin. maanaam lépp loo xam ne mën nga ko xool xam ne lii. du ay caaxaan dëgg rek la mën a doon troisième principe yonente bu yàlla mu sa wàccee ci kaw suuf benn mission nga am boo xam ne beneen mission boo am mission secondaire lay doon buy servir la mission principal muy nan la ñuy fexe ba tawhid samp ñu wéetal yàlla moom kase quatrième principe bi fa laay yem mooy imaamul bayhaqi ci dalaa ilu nubuwa dafa wax ni li ëppal solo diine du sax wane ne yàlla am na ne ne li ëppal solo diine mooy nan la nit ki ñëw ne yàlla moo ma yónnee nan la ñuy fexe ba xàmmee ko am certitude ci li muy wax al imaamul Ghazali dimbalee ñu ne boo bëggee xàmmee médecin mm-hmm. il faut nga am background am idée ci médecine mm-hmm. xam lan mooy médecine xam médecin lan mooy comportement wam xam lan la war a am ci xam-xam mu am au moins une certification mm-hmm. ci benn autorité boo xam ne day wane ni kii daal médecin la mm-hmm. yonente yi nag jàppal juróom benn mm-hmm. képp la asmi yonente yëpp képp ko wooteel yàlla koo xam ne am nga li ñuy tuddee martabatu risala taxaw nga ne ajibu daa yàlla juróom benn daje na ci yow bu njëkk bi mooy diinuhumul islaam nañu banque suñu ay baaraam mooy ñoom ñëpp lislaam la ñuy woote mooy seen diine buñ ne lislaam du rek bu muhammad alayhi salaam ndax nuux moo njëkk a wax ne wa ana minal muslimin ibrahima waxoon ne ana awalul muslimin ci jamono kon yonente nu wax ba muhammad alayhi salaam lislaam rek la ñu woote seen mission musul génn tawxid comme ni ko waxee sànq seen mission aussi moo nekkoon def révolution ci lu yàqu mission ululance bii ngay wax sànq boo leen limee ñoom ñëpp li ci gën a fës mooy dindi fi instabilité sociale mhm. ay disparité sociale mhm. loolu moo nekkoon mission yonte yàlla Moussa mhm. ca ña nga xam ne moo ñoom la Firawna doon bot di loolu moo nekkoon mission yonte yàlla Nuux kon diinuhum lislaam daawatuhum tawxid tawratuhum ais waaye alaamatuhumul bayinaat seen certification mooy def ay miracle def lu seen ay moroom manul xam lu seen ay moroom manul xamul waaye li am solo mooy mexnatuhumu takdib wayn yu kaddibook faxat kuddiba rusulun min qablik ñoom ñëpp sans exception lu néew ci nit ñoo leen di gëm waaye xam la moom solo muy le sixième élément nihayatuhumul intisar donte isla euh, taarix retenir na ay yonent yu ñu sax rey mais principe de base bi mooy yonent yëpp seen kàddu mooy mujje ñi leen daan boddi di leen persécuter histoire bu leen tuddee da leen di tudd pour jël en mauvais exemple waaye ñi ñuy seen tour moom ñooy ndawi suñu boroom yooyu mm-hmm. ibnu taymiya nag dafa am lu mu wax mm-hmm. dane ida tabayyana sidquhum mm-hmm. wajaba bi bihim fi kulli ma axbaru an nee na soo jëlee balance bi nga teg ko ci ndawal yàlla balance bi daanu nga xam ni mooma lépp lum la wax da ko war a gëm obligation la Seydina Limaamu Laay laata ñuy wax Mahdiyul Muntazar laata muy wax ni mën a démb mën a tey li mu njëkk wax mooy ajibu daa yàlla donc foofu la ñu war a njëkk taxaw parce que bu ñu ko lijjantiwul mënu ñoo lijjanti leneen ci ginnaaw suñu lijjantee ni ajibu daa yàlla ki ko wax buñ ko tegee ci miisaanu nubuwa mu daanu ñu xam ne lépp lum ñu xabaare ci ginnaaw am na pour tënk mbir moomu damay jël boroom xam-xam bu ñuy tuddee al imaamul Mawardi ci téereem bi mu tuddee alaamul nubuwa dafa wax ne ñett yi fu mu dajee ci nit ndawal yàlla la jàppal bu njëkk bi mooy daawal nubuwa ndawal yàlla mooy ki taxaw ne yàlla moo ma yónni mais man nga ne mais attends chaque jour ñu gis nit taxaw ne yàlla moo ma yónni ñu dem ba ci biir gis ne dara mu ci mu ne il faut mu ànd ak ñaar ñaareel bi mooy lan il faut mu ànd ak al mu'jiz mhm. li ñuy tuddee al mu'jiza il faut yàlla certifier ay waxam mu'jiza mooy miracle mooy kéemaan moom la Ibnu Ashir doon waxoon doon wax naan law lam yakunu saadiqiina mhm. mu ne la lazim an yakdibal ilaahu fi tasdiqihim balaa ngay sori bëggoon naa itam nga indil ñu ay leeral ci ñett ñetti yi nga wax sànq ñetti ñetti fan yi ñetti weer yi ñetti at yi loolu boo ñu ci mënee gindi itam dina baax ngay dem ci beneen point